yéen ay soppeem ay am di jàmmam namm ngeen ko bëgg ngeen mu dellusiwaat ndax euh, liggéey bii ñu nekk di métier showbiz wala wàllu animation daf ci am place ndax ku am talent la macha allah mbokk yi jéego rond bi lañ leen indil mu nekk animatrice bu mag ñu gëj koo gis gëj koo dégg mais tey indil nañ leen ko bëgg nañoo waxtaan ak moom lu yaatu nag ndax euh, yaakaar na révélation yi mu war a def am na solo mais ñu bàyyi ko mu nuyoo ak yéen ñu dugg ci waxtaan wi. Amina ñi ngi lay nuyu di la dalal ci plateforme yi lay yi lay seetaan yëpp ci internet. mbay sama góor maa ngi lay nuyu di la bëggee bu baax a baax di am contentement ci seet bi ngeen ma seet si di nuyu plateforme yëpp di nuyu bépp ami internet. di nuyu sama yaay Sale Bigué Ndiaye Ngambeen Dom Penda Ndiaye Ngambeen yu mi ci caam gaal man waalo waalo bu namp ngewel la waaw waalo waalo pire moo tax ma garaaw moo tax ma nekk bañkat aussi ñun waalo dañuy bañ ba dee noonu la demee sama wàllu papa waalo waalo laa sama juróom-ñaari maam yi ci sama papa yëpp waalo la sama juróom-ñaari maam yi ci sama yaay yëpp biram sëwru ndeela njaay la saala bigga njaay gambe ni biram penda njaay gambe ni ma nuyoo ko àdduna yéen ñëpp ak képp ku ñu suivre mm-hmm. Aminta Diop jeegu rond bi moom lay wuyoo euh, nga wax ko nga nekk ko am talent macha allah ñu la daan gis di la dégg mm-hmm. ñu jékki-jékki benn instant rek gisatun la déggatun lu tax loolu mais nag nañ takku ba dëgër te ne jeeg bi génn na fi mu ne ba dëgër xam ne jéeg bi génn na ci samay moom xale yu koy jël di ko doxantoo di ci am lu nekk nag mbay ci àdduna bi waaw dañoo gis yow da ngay génn benn affaire mais xale yi dañ koy jël yow mi ko génn sax dun xam ne yow yaa ko génn waaw moo tax nag jéeg bi dafay génn affiché wu léegi normal tumpaas jéggat ak lu ma saf te kenn du ko tere sama yëf la li may wax loo ci man la ne mbay damay jékkee-jékki rek mu ñëw ma rëkk wax ay daar daar lu kenn dul dindi mm-hmm. boo gisee nga génne dara xale yi di ko tiktok ñenn ñi di ko jël du ci am lu nekk. ci ay wax ñu jàpp ne ñoo ko créé ñooñu loo leen di wax. ñooñu li ma leen di wax tamit loolu dama ciy am contentement ndax bu nekkee génnee nga xale yi jël kon li may génnee am na njariñ ndax gis naa xale yi lu ma génne ñu jël ko loolu sant yàlla la ak tawféex loolu dama ciy sant bu baax a baax a baax a baax mais nag dama bëgg xale yi ñu def très attention rond-point yi ñëw ne te dafa génn te dafa génn ak yu garaaw yu doy waar. Hmm, non yu garaaw yu doy waar yu bees tàq yu may dajj ci paquet. nañ ma xaar. ci benn rek buñ ko ci jëlee mooy cas lan la. loolu léegi sénégalais yëpp dañ koo jël. am na émission sax bu tudd topp ka sa moo la ñu jël ñooñu waroon na fay droit de waaw mbay te yooyu yëpp samay moo ay cas lan la. nañ ko kaax nañ tas cas bi teg ko ci table ci ñu traité ko normal loolu bi ma koy wax tubaar fa kàll macha allah te dafa yàgg nag 2012 ba tey. yi mm, kàll macha allah may wax. Mm-hmm. macha allah mais sant yàlla tamit. sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax doole sant bu wér. ndax 2012 ba tey ngay wax 2017 ba tey nga nekk ci réseaux sociaux yi internet bi tey rek la yaatu. ay TikTok yeneen ak yeneen ak yeneen am mën nga toog fi nga toog di créer say yëf. mais nag roy du nduróog piir déedéet roy du nduróog piir mbay. ci ci loolu ñu gis Aminata Diop nekkoon animatrice bu mag nekk télévision bu mag bi di 2 yi mbokk yi ñu jékki-jékki benn instant rek gisatuñ la lan moo xew. Hmm. ngeen jékki rek gisatoo leen ma ma doon def émission na neex. daan ci ànd ak sama góor Papa Ndiaye. mbay 2STV. lu ma dal fa la ma dalee. looy wax ni. 2STV. lu ma topp rek 2STV la ma toppee ba léegi bàyyiwuma. li nga wax torop lu ma dal rek man Aminta 2STV la ma dalee fa la ma toppee plein émission ma yeewoo principal. E? lu gars yi xamul plein émission. loolu de kaala ma yeewoo principal. amul retour seetuñu ma lijjantiwuñ ma fajuñu ma ma def fa pendant un an at. ci télé bi def naa fa at. Mhm. janvier laa fa daanu woon yeewoo principal ba léegi ni maa faj sama bopp ak samay mbokk sama yaay ji nga xam ne jugul ci sama wet. Mhm. ak samay frère ñoo ma taxawu ñoo ma jàppale. ak ñu baax ñi ma yàlla booleel ak samay géer ñu baax ñi nga xam ne dañ ma bëgg fonk ma. Mm-hmm. ñoo ma bàyyiwul waaye ma lu ma dal ay yaa ngi ci soro ko génnatoo ngay toog di yëg yu garaaw ngay jékki-jékki di tiit nag sa fit di dem mm-hmm. parce que loolu dafa garaaw mbay loolu dafa garaaw nekk plein émission nekk en forme jongoma di tourner di wax ay daar daar di wax loo xamante ne lu kenn dul dindi nga daan ñëw chaque lundi ñu jëlee la lundi yóbbu la ba jeudi nga def blessure bu méttee méttee méttee méttee. ngay def lundi ba lëndi ba lëndi laa daan def wër na Papa Ndiaye ak ña ma fa fekkoon ndax man Papa Ndiaye laay tudd ndax man moom moo ma yéene woon yóbbu lënd yóbbu ma 2STV may def chaque lundi mm-hmm. ñu jëlee ma lundi di ma yóbbu lundi mardi mercredi ba jeudi kon xam nga ne loolu neexoon na kon maa ngi doon toj mm. mais amul retour. mais nga nga en pleine émission nga daanu nga ne amul retour fajuñu la seet si wuñ la ci télévision bu toll ni 2STV kilifa ya fa nekk. ni ñu baree ak li leen di déggal lépp loolu garaaw na. dañ ma sax fàtte li sax xamante nañ ma. waaye non xamatuñ ma. plein émission laa daanu dàll. yeewu rek gis ay ay yu tàkk. ak ñu lonkal la yëf. ñu lonkal ma yëf xaw ma fu ma nekk. plein émission. fii fan la fii fan la ñu ne ma yaa ngi bloc dalal. ma nekk fa après sama frère ñëw fa jël si ma. ñu génnee ma jox ma yi may demee rendez-vous yëpp ku ne xam ne ni rendez-vous dafa met principal mais damay sant yàlla di sant ñi ma yàlla booleel du ma fi nekk sax di lim ndax boo limee da ngay juum mais sama yaay dama koy dollee ñaanal njaay mu gudd fan lool te ànd ak wér bàyyi ma benn yoon toog sama wet ak sama frère sama frère yi ma yàlla booleel nag moo tax gis nga àdduna loo mën a def loo mën a nekk teel say bokk mm-hmm. sens boobu la am ci àdduna musumaa dem bàyyi samay bokk dara musul fëkk sama bët dara musumaa yóbbu du succès du dara mais xam nga nga doon toj di def lundi ñu yóbbu la lundi ba jeudi yaa ngi doon yëngal dëkk bi ba mu yëngu ci na neex waaw kon waroon nañ ma mën a seet waroon nañ mën a def retour xool ba xam nu ma mujjee ba xam nu sama tànk mujjee mais man ak samay bokk ñoo jug takku ba dëgër ànd ceeg sama yaay faj ma ba ma wér ak ñi ma yàlla boole nag ñu bëgg ma lool nag. baatu 2STV yi lu ma dal ñoo ma ko teg loo bëgg a wax. waaw parce que li ma wax leer na li ma topp lépp bàyyiwu ma 2STV la ma la ma toppee mbay te ba léegi bàyyiwu ma déedéet. ci santir ci sama wàllu wérgu yaram lu ma musul woon a dal lu ma musul woon a arrivé damay toog léegi mu di ma arrivé nit ñi dañuy toog di ma woo xoola aji maas Guèye dama koy nuyu de passage sama nawle la muy ku baax ñu bokk métier mi barki Dembo Ndiaye ñoom defal nañ leen émission ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ndax aji maas moo ma seet moo ma lijjanti ba barki Demb ñu invité ko Zik FM Alima Ndione mu tudd sama tur dagg vidéo bi yónnee ma ko loolu rëy na te maa ñoo nekkandoo woon 2STV muy ni ku baax aji maas dama lay ñaanal yàlla lafal la ca defal lu gudd fan wéral sama baat wéral sa baat wéral ñun ñëpp suñu baat ci kàttanu yàlla ak yërmande ndax mbay man yéenu ma ni dara lu bon jàmm laa yéene ñëpp lu baax laa yéene ñëpp lu baax bu ma sañoon àdduna ñëpp a koy am mais yàlla moo koy maye nit du ko maye boobaag tey bu ma ne laa wér naa wéru ma damay saale nii rek boobaag tey damay saale nii rek bañ a toog bañ a tëdd di bañ a jaaxal suñu waa kër mais damay yëg yu méttee méttee méttee damay toog di tiit sama fit di dem te sama wàllu yër gu yaram du ma wér damay jékki-jékki sama yaram bi di àndandoo di lox may tiit tiit yu garaaw moo waral programme yu bëri kenn gisatuma ci yu bëri ma wàññi ko boo xoolee bàyyi moodu kan rek laay rëkkal ma sa tàkk ma sa yar ndaat te du yoon man dama polyvalent man dama war a dem ci àdduna ñëpp tëyër yëpp samay càmmiñ lañ ñi fiy jaay ñëpp samay càmmiñ la te ñoo ñëpp dañ ma daan woo ku mel ne ajaaloo chéri laat gise dama fa daan nekk di ko yëngal ba mu yëngu mm-hmm. mais mënatuma dem parce que da ngay jékki-jékki di am ay tiitaanga yu ma bàyyee affaire bi bi nga bi nga bi nga xoolee du ñàkk faju nga faju olof wala seet wala dara luñ la wax. waaw dañ lay wax dañ lay wax ndax xam nga sama yaay seetaanu ma. samay frère Konaké be seetaanu ma samay frère samay bokk kenn seetaanu ma ku ci nekk da nga doon daw di ñëw di indi. Hmm. mais ba tey daal métit bi may yëg ak tiitaange yi ma yëg sama yaram man rek maa ko xam. Hmm. te du lépp ngay mën a wax looloo tax ma daan bu waxee rek ma ni non naa bàyyi noonu naa bàyyi noonu mais loolu jëmul kër ndax man dama njaboot. don soutien de famille li ma war bari te nag ma bokk ci réew mi bokk ci xale yi ba may affiché wu am fit di génn yore salon ci diggu rond-point bi xale am ñu woon fit bi ndax 2012 jeeg bi toog ci këram sax gérer këram di say sëyam boo ko nee jeeg bi day tiit naa lu tax ñu ma naan jeeg bi man dama affiché woon ba pare teg ci rond-point mm-hmm. mën a jur lu ne mm-hmm. ma ni man la jeeg bi ci rond-point bi daw ma ci dara mm-hmm. daw ma ci yotaa di taxaw ci émission bi di ko ba mu yëngu tapé leen na neex 2STV day génn lépp lu ma topp 2 la ma toppee mais nga ñëw fa di def lundi. Mhm. ba yàgg ñu yóbbu la ba jeudi. waaw euh, yaakaaroo ne rivalité bi bari woon na foofu amul ay xeex amul ay concurrent ci diggante animatrice yi wala animateur waaw loolu mënul ñàkk mën naa am peut-être mhm. xaw ma ndax du ma bàkkaar ndax man dama daan émission bu jeexee rek ma jël sama saak dem xaaruma woon dara mosuma woon a xool dara ndax yaa bëgg te ki may yéene muy Papa Ndiaye cu sama frère mu yenu ma yóbbu ma fa. ci moom laa doon xool lu bari du musuma laaj dara musul am retour suñu ma fay musuñu ma jox paas suñu ma jox dërëm. dama ah. yëngal ba mu yëngu ambiance mbeeraay mu jeex ma génn jël sama sac dem maay jël taxi aller ak retour maay dem wuti ma sol sañ sa ba jongo ma tàppeel na neex boo ko tàppee da gis. nga daanu. ma daanu kenn seet si ma fi. gisuma ko gisuma kenn ku ma ñëw seet si. principal nag laa fajoo boo wér ndax damay doomu dëkk bi bokk ci réew mi réew mi am ñoo xam ne bëgg la di la jàppale te yàlla rek tax en privé bu dul nag ak ñooñu kon kenn waxatu ko ndax sama kër maa géré lépp yow loolu yor sama yaay yor samay rak yor sama ñaari doom sëy nag ba sëy jotee sëy dafa dagan tàggoo dagan l'âge de 18 ans laa sëy ñu sàngee mam njoor ma joxe deretu yaaram sama jëkkër yàlla weddi maam ak moom ñaari doom ba léegi maa ngi toog di muñ gérer mais du lépp lañuy ñuy mën a wax en tout cas 2STV yi li ma dal fa la ma dalee ba léegi nii maa ngi nii maa ngi nii nag dénk naa sama bopp sénégalais ndax sénégalais yi ñoo bëgg wax dëgg yàlla fu nekk laay jote appel ci àdduna fu ne fu ne laay recevoir appel mais jéeg bi da nga war a génn ñun jéeg bi yaa ñuy daaneel ñun yow lañ bëgg jéeg bi lii yaa ko daan def di wax lii ak lii say moo di fël di falaal di sànneeku di jëmbang di jëmbeelu te duma ci woon daw dara parce que dama yaakaaroon ne àdduna looy def muy neex nit ñi rek danga nga ko war a def noonu muy neex doomu aadama yi ngay bégal ay nit te yàlla rek a tax. lan moo tax depuis boobu ba léegi euh, ça fait un an wala lu ko ëpp nga nga toog ci loolu génnoo. noo ëpp na ëpp ëpp na un an 2020 la woon ba tey. ba 2023 ah, def na 3 ans waaw na ñetti at léegi 2020 janvier 2020 le 3 janvier laa fa daan woon. dafa mel ni li ngay wax nii am nga ci naqaru xol. waaw sama biir xol laa ko ti tibbee dama di guerrière di gaynde nag gaynde laa du ma daw nee naa la man waalo waalo laa ma bokk ci jigéenu ndeer jom rek du ma daw du ma arrière tamit ku am fit laa am fit weesul ba sama papa wàññeekoo ba léegi ma yor sama yaay dawuma ci arrière ci. dafa metti daal may te xam naa ne bu ñu rek day doy waar dafa metti metti na torop may jigéen nag te sësuma ci kenn may jigéen te sësuma ci kenn mm-hmm. kenn du ma fi fekk kenn du ma fi kenn jàppalewu ma ci dara may demal sama bopp di daw waaye sama yaay kenn du moom ngay jaata biram sëru ndee la yaay kenn du moom bu ma ko gisul bu ma ko amul woon xaw ma fu ma koy waxee sama àdduna mbokk yi dafa dafa dafa metti euh, lu feeñ ci lu fees rek day day tuuru euh, xolam moo fees xëy na yi muy dund yëpp sax du ko mën a wax mais nag àdduna noonu la yi ak àdduna moo ànd mais boo jooyee émission bi day yàqu xam nga xam nga sama jigéen nga bëgguma laa jooyloo ah <laughs> baal ñu jubluwun ko ci mais ndeysaan àdduna noonu la yàlla baax na hmm? yàlla yàlla bari na sutura yàlla na yàlla defar lépp xam nga lii ñuy def moom dafa dafa xaw a metti am na am na foo ci jaar rek di nga dund loo xam ne waa day doy waar waaye nag yàlla baax na yàlla bari na sutura ni nga ko waxee maire bi ak njaboot gi yëpp yàlla na fi yàlla def loo leen mën a yore hmm? ci ci ci kàttanu yàlla yàlla baax na hmm? ni mu ni mu ni mu ko waxee yaa ngi koy dégg euh, daanu bi ci 2S mm-hmm. nan la la dikkee da nga da dafa am loo gis dafa am loo sentir da nga am malaise lan moo xew ba nga jékki-jékki rek daanu yeewoo ji principal. aw ma malaise de ndax kuy def émission nekkoo ci malaise ànd ak sama xel sama sang froid tranquille mais man mënu ma wax dama daanu sax mm-hmm. ba léegi mënu ma wax dama daanu wala lan moo ma dal. ab damaa jékki-jékki rek yeewoo principal bloc ba tey mënu ma wax lu ma dal sama tànk bi tey boo ko gisoon maara de ma subana waaw ñu ne place bi ma nekkoon dafa am. ñu ne 2S euh, li mu bëgg a wax mooy euh, comme ni mu ko waxee naas yi jaar na fa. Mm, dafa am feebaru xel lañu wax léegi gis nañ à pleine émission li mu ko waxee soxna Mbayang moom tamit euh, feebaram. ku ko kon loolu kon firnde la. loolu rek firnde la. loolu est que comme ni mu ko waxee 2 li ñu doon wax ne dafa nekk ci place bu rab nekk sa question loolu la voilà. waaw man xaw ma dafa nekk ci place rab xaw ma parce que ki ma jëloon yóbbu ma 2STV yéeneem rek la amoon te man it yéene boobu laa fa amoon te booy ñëw ci ci nit di liggéey ay doomu aadama mhm. ba lu mel noonu dal la dafa war a am retour même buñ la fajul ñu lay seet dafa rafet ñu déplacé wu ñëw seet la mhm. xool ci loo nekk mhm. loolu dafa rafetoon parce que mi ngi maa ngi nii tey ku ma waxul sama problème doo xam man du ma du ma koy torox man du ma koy yàlla di seetaan. non li nga wax nii ñu bari xamuñu ko woon. Mhm. bari na ñu nekk ci milieu bi ñoo xam ne xamuñu lii nga wax nii moom waaw te rafet na tamit ma leeral ko. ndax ñi ma bëgg. rafet na ma leeral ko pour ñi nga xamante ne nii dañ la daan gis nga yëngal te génnatoo pour mu leer ci ñëpp ndax nit ñi mën nañ la sax mere kii da daan ñëw sama programme yëngalal ma ambiance al ma mu neex ñu jékkee-jékki gis la nga toog te duñ xam mhm. rafet na nga génn wax mais li dal mbayang dal kan nga ni naasi moom ma dal peut-être que ñoom bu ñu waxul man maa génn wax parce que dama sonn lu def ñetti at trois ans waaw te nag man bay laa duma dee ci rondal de damay génn wax waaw waaw man damay wax de damay wax waaw tooñu ma kenn nag aw ci kenn soxla aw ma kenn xaar ma yàlla ñépp jàmm laa am ak ñoom mais daf ci am ñoo xamante ne ni tamit ci suñu millier liggéey bi tamit. waaw comme li kii doon wax sànq ay yëfu soxor. Mm-hmm. Mm-hmm. ah bon waaw. da nga ko fa dund. lu bari. looloo waroon tamit may ma fi émission li ma émission mu jeex ma jël sama saak ñibbi heure bi jotaat ma ñëw yëngal nag ba mu neex. appel yi ma koy jotee fu ne ci àdduna bi. Mm. fu ne laa doon jotee appel. danga jàpp ne dafa am ñu fa nekkoon ñu lay xeex. mën na nekk mën na nekk parce que li ma dal nii. mën na nekk lu mën a nekk la adressé wu ma kenn nag mais lu mën a nekk la ak li may yëg dañ ma bàyyi daal te xam ne damay njaboot aussi. gis nañu émission bi nga xam ne da nga ko doon def. Mm-hmm. ni mu jëlee woon réew mi. ñëpp mm-hmm. doon ko bàyyi xel. Mm-hmm. te boobu gis nañu sa émission moo gënoon kawe confrontation. est-ce que amoo si euh, xel ñaar quand même parce que ñu bëri jàppoon nañu danga nga bëgg a jël place bi ngoone parce que seen présentation dafa niroo woon et en plus fugg bi nekk ci yow moo nekk ci moom. mën na nekk. taalibe Serigne Saliou laa te du ma daw dara mën na nekk man xaw ma lu mën a nekk la. Ah, le fait que ñëw rek di def benn jour euh, quelque temps après. ngay def semaine bi yëpp. Mhm. gis na ne talent mi ngi ci yow te it am na loo leen mën a apporter bi nga doon def am na audience. waaw la demee mën na nekk lu mën a nekk la waaw man nee naa la gaynde laa du ma arrière de pare taalibe Serigne Saliou seen diggante dafa te nag ku ci nekk am na lu nekk ci yow. ku ne am na li la yàlla may te man dama gëm ne daam lu ma yàlla may li nekk ci man na dañ ma doxal koom ñëpp. gis nañu euh, li nga xam ne organisé woon nañ ko mhm. mhm. doon TV. Mhm. Euh, loolu. ah loolu moom moo xam lu tax woowu ma waaye xale gënumaa doon influenceuse ci réew mi de. xale ëpp ma visibilité tamit ci réew mi xale dàqu maa yëngal te bu ma waxee xale xaar du ma seen morom ah, du ma seen morom golog la duma seen morom ci dara jeeg jeexal na lépp bi ma amee 18 ans laa dugg ci néegu say kër gi ma doon say ma bul la kaw ba suuf bu weeru koor jotee dama naan jéeg jépp arrière leen ma ngar daajoo ko ba koor gi jeex te bëgg ñu lekk lu baax togg rek lay def. te yow moment boobu yaa ngi na nekk mun ngay déranger aussi te doo ci bàyyi xel. ñi may déranger dafa bari de man man rek déranger laa man rek jëmm ji taxaw rek daal di jëmbeelu rek déranger laa. lu mën a nekk la ba pare dama jonguma dama dégg dama mën li may def. xam li may wax li may wax loolu nag ne leen leer ne liñ ma def def def def def mu jàpp ma jàpp ma li may wax loo mi ngi ci man te à tout moment damay wax. Mm. Mhm. ku euh, la jamono ji euh, est-ce que yéen ñaar am ngeen benn relation ndax maag Sali am nañ relation sama frère moo tuddee Sali Thiam doom hmm. te sama kër balaa nit a def wax ma balaa nit a def tàggu ma lépp tegut sama loxo bi bi ko duma ko gis Sali daan xëy suba teel fii lay ñëw sama kër ñuy nekk bu guddi sama rakk bu góor bi bokk ak man ndey baay moo ko tuddee doo Sali Babel mu ngi daagu ci kër gi war na am léegi 13 ans nee naa la 2012 laa doon wax xale yi dañ doon ñëw di fortaatoo ci man man nag maa nekk nit koo xamante ne nii nag damay déranger de. mais le fait que mu la daan fréquenter relation bi yooyu yëpp am seen diggante. Mhm. fréquentat fréquenté tu la nga gis ko 2S mais loolu. ah mais loolu peut-être moom la. Mhm. da ngeen jote dara. jote wuñ dara barki démb rek maa ngi suutin mu dugg si. bërki dem rek maa ngi doon sutingal bàyyi Modou Kane mu dugg si. Massa Taak Massa Yer Ndaak maa ngi koy nuyu sama góor miwlu miwlu bi. Sali dama koy gëj a gis amatuma sax moo ma jaaxal. non man xaw ma. après xam naa da ngeen ko koy laaj. Hmm. Mhm. mën na nekk en tout cas xale yi jaar ci sama keppaar bari na de. xale yi ci man lañ doon rootee fii lu sotti rek nag am boroom à tout moment mën na nekk xaw ma yow yaa xool loolu xam ko gisoo ne man dañ ma teg bët. waaw looloo ma jaaxal loolu moo ma jaaxal moo tax ma génn nii wax réclamer. mais est-ce que loolu moo koy faj. ñu lay def comme ni nga ko waxee mm, ñu bari di jaar ci yow ñu ci am loo xam ne yow miy créé sax amoo ko nga toog nii rek bëgg a toog noonu est-ce que loolu moo koy faj. est que tamit du laaj nga jugaat dëggal sa bopp taxaw ñëwaat ñu xam ne yaa ngi looloo tax ma génn nii bàyyi sénégalais yi sama bopp xam nga man sénégalais moo tax ma génn nii bàyyi sénégalais yi sama bopp ba pare réew mi am na ñaan de fii. ñaankat yaa ngi fi maa ngi leen di bàyyi sama bopp. kilifa diine kilifa aada yi. kilifa diine yeeg kilifa aada yi. waa kër Serigne Saliou yi man Aminta Diop taalibe Serigne Saliou bi maa ngi leen di bàyyi sama bopp ak kilifa diine yi nekk ci réew mi suñu réew mi am na ñaan de mm-hmm. ñaankat yaa ngi ci réew mi di ñaan muy dal mm-hmm. ñoom ñëpp maa ngi leen di tàllal loxo li nekk ci man na dëñ ma doxal waaye dama war a doxal mais bi ngay dugg ci métier bi yow mm. woon ci côté mystique wala da nga ñëwoon rek dugg ci noonu waaw dangay ngay ñëw rek dugg parce que yooyu doo ko sóor yooyu doo ko sóor doo xalaat ne nit mën na def lii nit man xalaatuma loolu ba léegi mm. ba léegi nii man bàyyiwuma sax loolu xel man li ma doon demee mooy ñaanu wayjur loolu laa gëmoon di demee sama ñaanu jur ak mën a dimbali jaam yàlla yi sama kër da daan fees dell maa ngi nuyu ku ñu wax Amina Niass Niass Kumba Abdallah mhm. sama géer gu baax sërtu Samba Corofal Samba Jeela Niass naaru yaasu jàng mhm. ku ma mën a dimbali bokk na ci ñi nga xamante ne nii ci bi ma toogee yëkkati seen alal di ma ko jox damay jékki-jékki rek mu sone te ñoo ñu rafet na nga toog di leen gërëm waaw borom États-Unis Niass mhm. Koumba Abdallah Amina Niass ayca yu mel nii su amee mhm. euh, ñu bëri dañuy dem maanaam ci maamani seetlu ngir xam lan moo waral li nga xam ne moo leen di faral di dal est-ce que seetlu nga ñu am luñ la wax waa seetlu naa ñu ne ma nga jug rek mm. il faut nga jug pour sa yaram nga melaan ni nga meloon ak yooyu yëpp seetlu naa parce que fii il faut ngay seetlu mhm. ku mel ni sama yaay soxna Aïda Saliou moom bàyyiwu ma benn yoon chaque jour daf may seetal di ma génnal ay sarax te danaan ma jéeg bi jugal da jàpp ne mbir mi def-def ci wàllu mystique daf cee am. ah munu cee jóg Sénégal yow tamit koo xam ne dafa mën dëggal boppam. di talent kese kaw ba suuf lépp talent la. man sama lépp talent la duñ la bàyyee noonu man xam naa ne bàyyiwuñ ma noonu. mbay man xam naa ne bàyyiwuñ ma noonu. moo tax ma dénk sama bopp sénégalais yi. Mhm. yéen man Aminta Diop bi toog dénk na leen boppam. ma sax xale bu mën a ñaan nga xam ne boo talalee say loxo mu ñaanal la. Mhm. li nekkoon ci yow dëñ bañu ma ko. dafa mel ni sa fit dafa dem quand même jamono ji ndax yaa ngi woote pour ñu ñaanal la yaa ngi woo kilifa diine yi yaa ngi woo kilifa aada yi sa fit dafa dem ba ñemetoo métier bi wala loolu wax naa ci ndorteelu émission bi nee naa damay toog sama bi di tëf tëf yi may tiit ñemeetoo ñemeetuma hmm. da ngay toog di tiit sa yaram di tàng wax naa ko ci ndorteel bi sa fit di tëf tëfi <laughs> ñu lay woo ci ay programme bëgg nga ñëw yéene la mais doo mën a sax dem hmm. doo xam lu lay téye lan la bu paasee ñooñu di la woo di la mere tey rek amoon naa benn safar bu ma waroon a yendu nekk fa mais mënu dem te xam naa ne bu ma fa demee dama fay am ay teraanga mais mënatuma jug di dem. mais li nga bëgg a wax vrai mooy dañ la téye. dañ ma téye nañ ma bàyyi. dañ la sëf waaw nañ ma bàyyi ma doxal. man dama war a doxal ndax dama bokk ci réew mi. te li ma xam ci réew mi bari lool nag ñi ma bëgg bari lool lool lool lool dama bëgg a doxal. mais nag loolu est-ce yow tam. defoo fotifoo ci côté boobu ndax nag milieu bi ñu nekk hmm. waroon nga sóor ne boo ci duggee ak neen lu nekk mën na la ci arrivé ah. waaw loo duggee ci neen génnee ci neen moo tax te balaa ngaa xam na xamadi xaw laa gaañ ndax Sénégal la ñu nekk nag hmm. dafa am ay réalité dafa am ay réalité nit ñi ci ñi ma ko sañ wax kuy dem la nii bañ a gis ah. noonu la demee nag hmm. moo tax dama ciy ñaax ñëpp boo jugee sax di yëngal defarul ba bien takkul ba dëgër bu ci bañ dara takkal naanal sangul luñ la jox sangul luñ la jox takkal luñ la jox naanal ndax man koo xamante ne depuis 2017 ngay doxal ba léegi te fi nga nekkoon rek nga nekk mm. nga nekkoon rek nga nekk puusoo paasoo loolu du yoon <laughs> lool du yoon nga gis benn xale boo xam ne day ñëw jël sa wax léegi doxantoo ko naan la dëgg la di wax ay yëf léegi dem yoonam soxote dafa dafa mel ni dafa am quand même sa dënn sa càq di yëngu ngay daar daar ci diggu réew mi te yooyu feeñul dafa métti eh, yooyu yëpp yaa ko génne. yooyu yëpp maa koy wax. Mm. Ah? kooku sama rakk la ku ma bëgg la maam Ndiaye Savon. Mm-hmm. sama rakk la ku ma bëgg la fu ma fekk daf may teral barki démb rek bi ma mami Evans wootee foire ba ma ko fekkee dafa jub mu nekk ñëw ba ci man kottu ma yëkkati wéef bu dëgër këj. Mm-hmm. yónnee ma ko. sa caq yëngu. ba ma koy wax. loolu yàgg naa de moom xam na loolu xewul. moom ba pare xamal na ko xam na ko te nangu na ko. moom mi ngi fay droit d'auteur waaw moom mi ngi fay moom mi ngi fay <laughs> moom mi ngi fay. ndax fu ma fekk. Mm-hmm. xaalis bu bëri lay yëkkati may ma ba pare kooku mooy yaayu Serigne Fallou du daanu. Mm-hmm. d'accord mais bëggoon nañoo xam quand même ndax tey am na ñu lay contacter ngir nga liggéeyal leen moo xam site internet wala télé wala sax rajo parce que yaa ngi ak voix bi. waaw maa ngi leen xaar buñ ma contacter ma dem. kenn contacter wu ma dañ li nekk ci man dëñ ndax dañ may contacter sax duma mën a dem nag. Mm-hmm. dañ may contacter wax dëgg yàlla mën naa limal ay tur yu may woo mais du ma mën a dem. ba après ba mu jàll nga may waa ne ma gisuma la may lay te xaw ma li may lay lan la fii du ma fi génn du ma jéggi bunt bi maa ngi sama kër toog te loolu du yoon. niñ la saf diis na de. torop. xam naa mën na nekk. bi sa yëkkati wuñ kii bi rek boo demee ci frigo bu mag ba teg ma fa ma am ñu wéttali ndax ñañ fa def bari na bi nekk fële port bu mag a mag bi nga xam ne fa la ñuy wàccee congelé yu mag a mag yi mhm. xam naa dañoo ubbi rek ma fa mais nañ ma bàyyi ma doxal nañ ma génnee ma dem mhm. Mhm. d'accord mais mais coowu jigéen ñi bay dafa mel ni war na cee mën a àddu de ndax gis nañu li nga xam ne euh, moom moo xew ci diggante wax dëgg yàlla famille cekkeen ak euh, li nga xam ne moom mooy xew quand même aw Baba Thiam ak eh, ki nga xamante ni moom moo di Amzo ak ki nga xam ne moom mooy Salah coow li bari na nga nekk jigéen Mor Thiam géwal eh, mbirum eh, nawle dafa foor dégg nga ko alors Alsane Mbaye tey coow loolu noo ko jàngatee en tant que jigéen quand nga maye sa doom coow li yëpp topp la ci ay révélation di am. Alioune Seck ak jabaram de maa ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom barkeel sëy bi yàlla na sëy bi barkeel yàlla na bokk ci sëy yiñ takkee ca aras man loolu rek laa ci mën a wax. Mm. àdduna nag moo ni demee parce que fréquenté wu ma leen nekkuma ak ñoom ba war cee mën a wax xaw ma ci dara wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ni nga ko gisee laa ko gisee. mais na comme ñoom ñaar ay xale lañ te ay ndaw lañ mag ñi ñoo ci war a jàpp ak ñaanal leen yàlla dëgëral seen sëy. ak yàlla def ci njaboot gu barkeel. Euh, comme sëy bi am na ba pare. est-ce que coow li ci am jaroon na ko kon. Mm. du ñaanal xale yi rek ñu sëy ci waaw boo déggee man ma ne la nañ ñaanal xale yi ñu sëy xam naa ni njur mettee am naa doom. nga may sa doom di dégg ay bal neexul neexul ci xale bi parce que fi muy sëy neexul ci ñi mu sëy si ndax ñoom ñëpp ay gor lañ. Mm. léegi nag mag ñi ñoom ñooy jéem a toog rek xool na ñuy waxtaanee mais am na yoo xamante ne nii tamit bu tasaaroo ba dem ba ca pénc ma day naqaree waxee. te Sénégal dafa nekk loo xamante ne ni am nga nooy waxee sax ñu yaakaar ne dara na man ñii nga may wax ñëpp wax dëgg yàlla am xamante ma ak ñoom. Mm. fréquenté wu ma ak ñoom. mais yëf yi man yi ma ci dégg yëpp est-ce que waxtaan weesu ci. wala gars yi. kaa bi waaw parce que kaa bi sori na. kaa bi sori la de nee naa dem na ba ci dafa dem ba ci penc ma moo tax duma ci sori. waaw mais mais en tant que jigéen tey ndax jàpp nga ni tey loolu lu rafet la nga maye sa doom ñu lay fàttali sa juddu di la wax ni nga juddoo di la wax bitis yi nga daan def quand même en tant que jigéen ndax loolu euh, jàpp nga ni lu rafet la. non en tant que jigéen rafetlu ma ko te ñaanu ma ko yàlla jigéen. am nga nooy doxalee sa àdduna bul soor sa tay rek mu neex da ngay sóor suba ndax da nga njaboot. koy waxal na ko xam koy xaritool na nga ko xam koy àndal na nga ko xam parce que am na ñoo xamante ne nii boo amee lu baax rek say mbir génn fekk ñi nga ko sëkkal da nga daan toog di waxtaan ak ñoom ñu jàpp ko ay détails pour neexal jotaay mais fi ñu koy génnewee doo yëg doo tin ñu ngi la ko dencal. Mm-hmm. jigéen ñi dañoo war a moytu xool fréquence yi ñi ñuy fréquenté. fréquenté koo nawloo pour sa njaboot ëllëg dafa am solo ni da naw ku la nawloo ngay xool ku baax nit ñu baax nga xam ne kii nawle la kii gor la gor soo xamante ne ni ma sekkeek moom du génn ndax fii boo nekkee xale da ngay def yi fo xale. waaw après mais dangay ngay ne da ngay màgg ëllëg. Mm-hmm. d'accord mais ndax jàppoo ni tey. Mm-hmm. Euh, lii mën na traumatiser doomu aw Baba Thiam bi nga xam ne moom mooy sëy. parce que wax nañu ne jigéen xelam yaatuwul. Mm-hmm. ndax gisoo ni mën na ko traumatiser li ñuy waxal yaayam ak li ñu koy jiiñ di ko fàttali tey ba mu nekkee gone li mu doon def eh, ni mu juddoo ndax gisoo ni mën na koo traumatiser. waaw mën na koo traumatiser mën na ko bañ a traumatiser na nekk mm. gaynde rek. Mm. na nekk gaynde rek dëgërlu ah. na dëgërlu rek xam ne am na yoo xamante ne nii man boo koy wax duma ko bàyyi xel xale bi moom bu nekkee nit dëgg mu nite. Mm-hmm. yooyu bum ko sax yëngal. parce que ki muy bu dee bëgg na ko mu bëgg ko ñoom ñaar ñu nobante ànd ba mu takk ko yeneen yi ñuy wax ay détails la nañ ko bàyyi ginnaaw fii àdduna la Sénégal la mam rayul weer bu mu ko bàyyi xel bu mu ko lijjanti bu mu ko traumatiser man ci xale bi laay waxee ndax am yërmande ci xale bi ndax xale la nga dugg ci néegu sëy kaa bu ni génn loolu dafa doy waar loolu dafa yéeme en tant que ngay yaay jur doom mm. xale bi dama bëgg moom mu dëgër lu gën a jàppanteeg jëkkëram nam ko nobbe noo ko gën a nobee noonu dëgër lu sëy te yàlla tax. bañ a réccu ni mu duggee ci sëy bi bu mu ko bu ci réccu dara. bu mu ci réccu dara na gën a dëgër lu gën a góor lu sëy xaw ma yaayam xamuma ko mais loolu laa ko mën a conseil hmm, kontaan nañu euh, waxtaan wi am na solo yaakaar naa yi fi génn yëpp mbokk yi yaakaar naa bu ngeen ko déggee dangeen xam ne xol moo doon wax ak ku dund loo xam ne dafa metti te ni mu ko waxee ginnaaw yàlla ak njabootam kenn fekk ko ci ak mm-hmm. ñi ko yàlla booleel mm-hmm. waaye ni nu ubbee rek euh, noonu la ñuy tëje yàlla doole la jàmm rek gën la dëgëral ah amiin yàlla dooli la sutura ndax sunu jigéen nga bu ñu sañoon doo am dara loola naqari ah. mm-hmm. am na nu mbégtee ak kontaante bu baax a baax doon jàkkaarloo ak yow looy looy tàggoo xanaa di am contentement bu baax a baax ci yéen di kontaan ci yéen di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm barkeel seen télé yi ba yàlla def ko mu nekk ay télé yu mag a mag a mag a mag a partout dans le monde ci kàttanu yàlla yàlla mën na ko te yàlla da def yàlla lañuy ñaan yàlla moo ñuy may di kontaanaat bu baax a baax ci sama dëkkandoo yi ndax Cambérène 2 fii 2009 ba tey laa fi dëkk mais aw ma fee kenn xaar ma yàlla ñëpp laa amal jàmm ñaari tailleur yi fi nekk muy xaadim kase biram kumba njaay mi ci mbal alma ba yaa seen jaar naaru ay daaw mooy sa kase chéri bintu bàyyi son yi bu sama góor sama xarit maa ngi koy nuyu di nuyu bàyyi moodu kan ma sa taak ma sa sayar ndaak ñoom ñaar ñoo fi nekk Cambérène 2 ak Abdou Mbaye Baye Fall bi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu man nitu ñëpp laa man pour ñëpp laa man dama polyvalent war a dem ci ñëpp di dem di ñëw di nuyu àdduna ñëpp ak képp ku ñu doon seetaan di amaat contentement ci samay mbokk ñi ma bokkal ñëpp di kontaan ci ñoom di kontaan ci sama waa kër yaay di kontaan ci sama rakk yu góor yi nga xam ne nag ñoo ma bëgg jàpp ma wittali ma ak sama yaay du ma jug ko ñaanal njaay jaata yàlla na dund ba fekkee ñëpp am jàmm ak sutura su sax daal kontaan yi